ربك ma daal di koy jël ndànk dem ba fa ma ko fa ma ko jële woon ma ne ko fa teg mu ne mes <laughs> dama ko ne tegg rek mu ne mes daal dem waaw sëñ bi laa bi nett la xisa bi na xisa bu bari ay ay mbóot la boo xam ne xam naa ne sëñ bi eh, li ci nekk lépp sax waxu ko daal man mii day ak neexoon sax mu mu mu déey ma lenn ci mbóoti xisa boobu waaw te moom ku ne xam na ne ku jege woon sëñ bi la ku sëñ bi daan dee ay ay mbóot yu baree bari la kon loolu bu ko sukkandikoo rek day daal di boole mbooleem mbooleem nett li yi nga xam ne day day wax ci cosaanal màggal gi mooy kon ne màggal gi fukk ak juróom-ñett safar gi ñuy màggal dafay bis boo xam ne mën nañu wax ne paaka ñaari bor la maanaam mooy bis bi nga xam ne ci la sëñ bi demoon ci tukki bi kon ci la natt yi tàmbali waaye itam mooy bis bi nga xam ne itam ci la nattu yi jeex ba ba pay gi tàmbali di ñëw pay gi sax tàmbali woon naa ñëw waaye ci dëgg-dëgg nag pay gi nag mu ngi tàmbali dëgg-dëgg ci fukk ak juróom-ñett noonu ko sëñ bi nettalee ci bisu alxames boobu nekkoon fukk ak juróom-ñett ci safar ci njaareem loolu ci njaareem la xam naa du sori ay massage maanaam 1340 jàpp 1341 42 xëy na ay 20 21 22 yooyu ci ati tubaab euh, boo boo fekk na xëy na lu ko jiitu nag mu am. leer na ci taalibe yi ñoo xam ne waxoon na leen euh, lu aju ci mbirum màggal gi ku mel ne comme comme comme ku mel ne sëñ Mulaay sëñ Mulaay Buso nga xam ne xaaf moom xar moom muy muy muy nettali te nekkoon aw béy sëñ Moodu Buso taab sëñ Mbàkke joxoon ko sëñ bi te bi sëñ bi demee ba war a santaane màggal gi mu wax sëñ Mulaay ne na ko wecc ko am xaaf loolu lool moom sëñ Mulaay ci boppam moo ko nettali boppam mu mu wecc ko am xaaf mu ñëw mu defarloo ko ko digal ko mu jox ko. lenn ci ay bàjjanam mu wàgg suñ bu soobee nekkoon ci kër gi ñu defar ko mu màggal mu xamal ko ne ko bis bii day bis boo xam ne <clears throat> li ma doon wut lépp <clears throat> ci laa ko amee li ngeen doon wut ci man lépp itam ci ngeen ko ame kon saa bu ñëwaatee na ngeen ko fonk ci loolu kon ci la daal di waxee sëñ bàll Faali Jeng it mu xamal ko woo ko jox ko ndigal ne ko na ko siiwal na ko tasaare ba ñëpp dee nga jot ci. nga xam ne diir bi li mu fi nekk moom sëñ bi ci njaareem saa bu màggal masaana ñëw mboolem. fu kërub murit nekk rawatina ab seex da ngay togg ay ñam yu baree baree bari defar ko ba mu baax ñu indi ko ci kër gu mag gi bu génnee taxaw ci buntu jàkk ji xool xool ndab yi daal bég lool xolam sedd mu santaane ne nañ ko séddale nañ ko yóbbu ci béréb sàngam ak kër sàngam ak kër sàngam loolu def na ko diirub diirub lim nekk njaareem ci at yu mujj yi ba ni nga xamee ne yàlla dogal na mu ñibbi si Tuubaa nag ñuy wéyal loola màggal gi ñuy wéyal kenn ku ne di ko def ci sa kër ni ko sëñ bi diglee woon ci xilaaf ak Cheikh Moustapha al Karim ba ni Cheikh Moustapha ñibbee àjjana ci la Cheikh Amadou Fadou toog ci xilaafa gi nag def fi ab diir bu yàgg lool daal di koy woote nag daal di ne damaa def koo xam ne ngottuma te bëggal naa sama bopp lu baax bëggal ko ñëpp te ma ñëpp jariñu kon moo woote màggal gi ne nañ koy defee si Tuubaa booba itam nag eh, yoon wi soxla na lu mel noonu ab daje bu mel noonu ndax booba ñu ngi ci naal wu rëy woowu nga xam ne moom moom la leen sëñ bi bàyyee muy jumaay Tuubaa ji Cheikh Moustapha taxaw ki taxawaay bu rafet indi raay bi euh, fondation jumaa ji ba yëkkati ci ay soror Cheikh Blade ne woon na bu dul woon a guerre bi muy deuxième guerre mondiale kon bi mu fi bi ko yàlla randal bu jumaa ji àgguloon itam dana sori lool. kon laajoon na te moom ci diir li mu fi nekk mi ngi woote Touba di woote njaareem ci nit fan ci ci aw tamxarit saa bu ñëwee mu def discours fàttali solos jumaa ji ak ndigal li ak li ci nekk ak ak ak ak li ci sëñ bi diggee moo tax bi Cheikh toogee nag. daana kon dama bëgg ñëpp nag di ñëw daje di di daje fii fi Touba ci fukk ak juróom-ñett ki safar ñu santale Serigne Touba boroomam kon sëñ bi ak cant la ko tudde woon moo tax màggal gi kon ginnaaw bi ñu xamee liy cosaanam ci wàllu tukki bi xam liy cosaanam ci wàllu historique bi nag kon laaj na ñu xam kon lan mooy màggal maanaam maanaam lan la jublu ci màggal Serigne tubaa bu ne nañ nañ màggal baatu màggal boobu Serigne Saliou nee na ku ko dégg ci moom nga ko dégg ndax booba dafa waxoon mag ñi ne leen bisub saamina achar saa bu ñëwee tee na ngeen ko def ne ne ak tabaskiwaat Euh, xëy na ci waxin ñoom ñu ñu ñu tàmbali dégg nga tuddee ko ak tabaskiwaat ba ba loolu bëgg a mu woo leen ñu ñu ñëw wala boog dafa leen waxoon ne na ngeen ma ki sant la yàlla euh, daal di di wax ne ku ci mm, ku ku ku mu loo loo loo man di ko dalee ci ci ci ginaar ba ci gileem loo man na ko ci def. moo tax ma mag ñi am ci ñoo xam daan def ñaari bu ñu amee bu ñaari xar denc menn mi bu tabaski jotee ñu tabaskee menn mi bi ki des ñu denc ko ba màggal. ku ci am menn xar sax sa xër ci sëñ bi da ngay ne ah man kat yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne ci moom la ci moom la ci moom la tabaski jaare mën naa wax ne deful ma lu jaar may may may rend sama xar mi kon naa ko dencal sëriñ bi ba màggalam nga ba bisam ba ma rendal ko ko bi bi ñu tàmbalee di ko wax nag tabaski waat nag mu xam ne loolu mën naa mën naa jur bi daa sëñ Saalu ne ci la leen wooye nag di leen bu ko kenn waxati tabaski waat waaye na ngeen ko tuddee màggal mu ne ne baatu màggal boobu ku ko dégg. ci moom nga ko déggee waaye màggal gi nag du caagi nag màggal jëmmam la la ci jublu wala màggal ab liggéeyam la dara waaye donte jar na ko sax waaye li jublu mooy màggal yàlla ci sant ko ci xéewalam yu rëy yi nga xam ne defal na ko ko te muy xéewal yoo xam ne moom nee na rëy na rëyaay boo xam ne sama cantuk bopp rek li muy rëy rëy nag nu nekk nag sant na ko boromam nu ne sant di àgg rek sant na fa yàlla waaye nee na may yi dafa rëy rëyaay boo xam ne lottal na dëgg-dëgg ma di ko sant te na mu ci àqam hibaatuka lii ayat sukuriya fil kunhi laka alhamdu yaa fardan taalayta an shubhis dina ko sa may yi dafa bari ba lottal na sama cant dëgg dëgg dëgg waaye du tee nag fu ma toll maa ngi lay seedeel sama cant moo tax booy jàng xasida yi rawatina lu mel ne nuuru daaree ni ci mujj ga da ngay gis làkka sukuriya rek ak dégg nga maanaam sakartu kay ni bare lool waaw làkka sukuri rabbi min muharrami li xadmi sil xijjati xadmi alxarumi yëpp mu mu sant yàlla ci at mépp sant ko ci lépp waaye teewul mu ne nag na ngeen ñëw nag sant ma yàlla ci bis bi kon sant la moo tax Cheikh Amadou Fadal bi mu wootee màggal gi ba nit ñi ñëw itam bàyyiwu leen rek ñuy doxee ñu leen neexee ci màggal gi foofu kon dafa leeral nu ñuy màggale ak naka la ñuy sant yàlla moo tax ba ba mu ñëwee discours yi mu njëkk def ci màggal gi mooy dafa ne damaa bëgg ngeen xam ne kat bisub sëñ Tuubaa yi xeet wu ne da nga am bis boo xam ne bu ñëwee da nga koy fonk di ko warmaal di ko màggal wax tabaski histoire tabaski ba mu jeex daal moo tax bis bii nag dama bëgg bu ñëwetee ngeen fonk ko di ko màggale nii ma leen di bëgg a wax da ngeen ko màggal ci jàng alquranul karim kon loolu mooy ni ñuy màggale da ngeen ko màggal ci jàng alquranul karim lu ngeen man boole ci di jàng xasaayid yi mooy di tudd yàlla ndax tudd yàlla bu ñu ko waxee xasaayid Sëñ Tuubaa yëpp da ko ëmb xasaayid Sëñ Tuubaa mboolem luy xeetu tudd yàlla rek mi ngi ci biir waaw ñaan ak jéggaloog salaatu ala nabi kañ yàlla sant koog yëpp mi ngi ci biir xasaay di daanaka bu leen ci yam itam da ngeen ci boole itam di joxe aw ñam mooy bernde xam ne cosaan la moo doon bernde comme noonu mu ko noonu noonu comme noonu ñu ko waxee woon. daanaka da ngeen ci boole te bernde da ngeen ci jiital joxe aw ñam jox ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla muy foqaraaw yeeg ak maanaam masaakin yeeg ak ak ñi nga xam ne dañ koo laaj ñi nga xam dañ koo soxla da leen jox aw ñam ndax joxe ñam dafa am solo lool wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran ba mu jeex yàlla yàlla tàgg na ñi nga xam ne dañuy joxe aw ñam te fekk ñu soxla ko lool waaye nag ñu koy joxe ñoo xam ne dañ ko soxla mu ne kon nag da ngeen ci boole joxe aw ñam boole ci itam nag da ngeen ci boole jokk ak bokk da ngeen ci boole jokk ak bokk da ngeen ci boole itam di ziyaare béréb yu baax yi ak gaa yu baax yi moo tax su màggal jotee nga gis ñuy siyaare barabu sëriñ bi di siyaare armeel yi di leen ñaanal di siyaare béréb bi gaa yu baax yi di sàkku ñaan di jokkoo bokk itam nag ndax boo xoolee fi màggal toll léegi ci wàllu dimension ci anam yu wuute dimension sociale bi ak dimension culturelle bi ci wàllu xam-xam ak dimension économique bi ba ci dimension maanaam euh, dégg nga religieux religieuse bi yëpp boo ko xoolee da ngay xam ne kon la sëñ Fallou waxoon daal lay ñëw waaw màggal ngay gis bu ñëwee mboolem xeet yëpp dañuy daje ci benn béréb mboolem confession yëpp maanaam. Euh, mboolem tarixa yeeg association islamique yeeg yëpp dañuy daje ci benn béréb di saafowante di waxtaan di di di di di di bégee lislaam di bégee ak bokk di bégee réew mi nga xam ne ñoo ko bokk te ñu ko séddoo kon yooyu yëpp di ay dimension yu wute yoo xam ne màggal da ko ëmb ba tax na màggal doon lu am solo loo xam ne waaye nag cosaan la nag moo doon dimension diine bi nag mooy tudd yàlla sant yàlla cant ku ne xam ne ne ci maqaama yi gën a màgg ci maqaama yi ci maqaamaatul yaqin ci la bokk ñu ko ni ko waxee nee na bi bis wax na ko ci minan ne xasaali nee neena can sant yàlla dafa bokk ci maqaama yi gën a kawe ci maqaamaatul yaqin te sant kenn mënu koo def lu dul ñett yi dafa daje mooy faaw nga xam xéewal nga nga nga xam xéewal gi yëg xéewal gi soog a jëfee nag cant xéewal gi te xam-xam bi mooy nga xam ne yàlla moo la jox xéewal gi te sëñ bi loolu la xam xam na ne xéewal gi li muy rëy rëy liggéey na ko de waaye nag yàlla la neex mu jàppale ko téyel ko téyel ko boppam sàmm ko ba mu def liggéey boobu ba yàlla fay ko muy muy sant kon xam-xam la mu ne xam-xam boobu nag mooy jur nag yëg-yëg bi yëg-yëg bi nag mooy mbégte mi nga xam ne mooy am ci sa xol te du doon mbégte moo xam ne da koy bég ci jëmmi xéewal gi ci boppam waaye doo bëggee xéewal gi de mais da ngay bëggee borom xéewal gi yàlla mi la jox xéewal gi bu ñaar rek cër yi moom day daal di sawar ci jëf cant gi soo baa nag kon léegi da koy jëfee mooy xéewal googu nag nga jël ko jëmee ko ci lu neex yàlla moo tax ba muy wax cant ga dafa wax ne su ma koy sant bi fardin wa sunan laa koy sant maanaam dama koy sant moom suñ borom ci ci jëfe farata yi ak jëfe sunna yi danaa ko sant inda tuubaaya wa inda daaratil minan fa fa sama tuubaa ak fa nga xam ne mooy daarul minan nga xam ne kon ci xëcc bayit yooyu ma ma junj tudd na ci sax booba maanaam màggal gi ne euh, buñ ko mënee defee tuubaa sax moo gën te booba fekk na tàmbalee guñ ko def tuubaa ndax wa inda la wax danaa ko sant alayya maanaam xaalige dégg nga ma sukkuruhu bi gis min waqilaam mooy danaa ko sant ci sama xalima ak sama yaram fa fa fa fa sama tuubaa ga ak fa nga xam ne mooy daaru salaam waxaat ne feneen fa fa tuubaa waaye fa nga xam ne mooy daaratil minan nga xam ne kon bayit yooyu yëpp buñ ci delloo danañ gis ne junjoon na euh, ne ne ne ne màggal gi ci boppam ak cant la waaye nag cant gi nag maa ngi ko gën a taamoo fa nga xam ne fa laa fa laa fa laa nekk ñu ñu ma fay fekk dama ziyaare muy muy Touba kon sëñ Fallou daa mel ne moom kon dafa dégg déyub sëriñ bi ba tax mu daal di woote eh, màggal gi Touba kon noonu la ñuy màggale kon màggal gi ak cant la du folklore du loo xam ne dañuy ñëw daje rek eh, riir mi rek damaa màggali woon def say selfie nangam photo def nii déedéet boo ñëwee fexeel ba bokk ci ñuy yàlla ndax am na mbokk mu baax suñu muntaxaa day wax ne am na ñoo xam ne danañ màggal si màggal am ñoo xam ne danañ màggal si duñ màggal am ñoo xam ne duñ màggal si ba noppi màggal <laughs> yëpp da ci am wax ju am solo la nee na am na ki ki ki màggal si màggal kooku moom am na ñaari tuyaaba ndax déplacé na ñëw tuubaa muy xéewal gu rëy nga xam ne bu ñëwoon Touba bu dul màggal sax te ànd ak yéen gi rafet rek day am solo ba noppi màggal teg ci nag mooy jàng na alxuraan jàng na xasida ziyaare na béréb yu baax yi jokk nag bokk joxe na aw ñam joxe na addiye nangam kooku màggal si na màggal na am koo xam ne màggal si na waaye màggalut mooy ñëw na moom mooy li gars yi wax daan kuy kuy kuy gàmm kuy raas dem bokkut nga xam ne moom dafa ñëw ngir beneen yéene moom wala moom dafa ñëw rek ngir rek ne ci ne ci maanaam ci ci boppam rek ba yiw bu baree bari faat ko ci yiw yi màggal kooku moom ñëw na màggal si waaye màggalut am na ñoo xam ne nag nekkuñu tuubaa ñu ngi ci àll bi ñu mel suñu mbokk yi nekk ci maanaam diaspora bi nga xam ne tey jii boo ñëwee ci kër Sëñ Tuubaa ci ci bisu màggal sa day sedd ndax danañ teel a xëy si tàmbali alxuraan di jàng kaamil yu baree baree bari jàng xasida yu baree bari ci durus ak dégg nga kuréel def ay bernde yu am solo waxtaane Serigne Touba waxtaane yoonu géej gi waxtaane ak baaxam ñooñu ku ne xam ne ne màggal si wuñ Touba de waaye màggal nañ nag te loolu moo doon ko sànni xam nga màggal te doo màggal si euh, kon yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne dafa mat a bàyyi xel bu ko defee nag loolu kon mooy kon ñaareel tomb bi ginnaaw bu ñu xamee historique gu màggal gi xam nuñ koy defee li ki des kon mooy mooy li mujj mooy nag buñ ko defee ba noppi nag lan lañ ci yaakaar am. yaakaar naa ne njariñal màggal moom fi ne ñëpp xam nañ ko léegi ndax njariñal saayir rek daa fës fës fës ba nga xam ne ñu bari sax dañ koy tudd ba fàtte njariñal baatin li waaw ndax njariñal baatin li mu gën a am solo ku ne xam ne ne tudd yàlla boo ko dee def am na lu mu lay jural boo dee tudd yàlla sa xol day dund sa ruux day dund say daraja ci yàlla day yokk dañ lay jéggal say bakkaar dañ lay fàggul ëllëg te xeek àddina ak alaxira kon gis tudd yàlla suñu borom te suñu borom nee na bu ngeen ma tuddee ma tudd leen ba ngeen ma tuddee ci wéet ma tudd leen ci wéet ngeen tudd ma ci mbooloo ma tudd leen ci mbooloo ma fàttaliku leen ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo ma ngeen ma tudd fadkuruni azkurkum la ko tënkee mooy su ngeen ma fàttalikoo rek ma fàttaliku waaye washkuru lii la wax su ngeen ma santee nag moom laa leen digal waaye wala takfuruni bu la ma wedd bu ngeen santee man ma dolli leen te comme cant la màggal cant la bokk na ci njariñel cant mooy saaboo boo santee rek yàlla dolli la la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee rek ma dolli leen te foofu yàlla tënku ko ci dara yu baree bari bu koy wax naan su ngeen ma ko su ngeen ma defalee nangam ma ma defal nangam su ma neexee su ngeen ma ñaanee ma may leen su ma neexee su ngeen nekkee ci problème su ngeen ma ñaanee ma génn leen su ma neexee waaye ci wàllu sant moom day wax ne bu ngeen ma sante rek ma dolli leen kon gis nga ku bëgg yàlla la déedéet nga di dolli da ngay sant yàlla te bokk na ci sant yàlla màggal si Tuubaa ba noppi màggal nag ci kon gis nga maanaam màggal bokk na ci tuyaaba jii jóge ci sant yàlla ni mu toll ak ni mu rëyee kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko wax waaw bokk na ci itam njëriñ yi itam mooy jamono boo xamee ne màggal si nga te màggal man defe ko ni ko ki ko digle santaane mooy yow da nga da da nga da nga da nga da amaat amaat beneen yëg-yëg ci ci ci ci ci ci moom ci ci borom màggal gi mooy benn di nga ko gën a bëgg ndax da nga gis ci Tuubaa xam ne da la yéem da fi déggee itam du la yéem. ndax am na ay jataay xam-xam yu ñu fay amal am na ay jataay waa waaraat yu ñu fay amal boo nekk am na ñoo xam ne sax ci seen biir kër yi nekk di ay kilifa sax dañuy organiser ay waxtaan ci suba gi wala ci yor-yor wala ci ngoon gi su ko defee ku màggal si boo ñëwee teew teewlu mën koo diglu kon da ko fa jëlee xam-xam waaye da nga fa yokkoo itam ci wàllu ruux da ko fa yokkoo itam ci wàllu xel ak ci wàllu xol kon yooyu buñ ko buñ ci amoon rek mu bokkul nag nag ak njëriñ yi koom yi ciy juddoo nag ci màggal nga xam ne jaaykat yeeg jaaykat yi madlaa yeeg jaaykati ndox yeeg bu dégg nga borom boutique yeeg borom magasin yeeg ba ci transport beeg ci fànn yëpp transport aérien bi ñi ñi ñiy jaay ay billets li ñuy jaay ci période màggal kenn xamul lu mu toll ñiy jaay euh, ay ginaar ñiy jaay ay xar ñiy jaay ay nag ñiy jaay ay giléem seen chiffre d'affaires ci màggal gi ay millions wala léeg ay milliards boo ko dee seet liy dugg ci keesu état ci màggal lu bare bare bare léeg-léeg sax économiste yi di ko estimer ci lu ci xaalis bare bare bari waaye sax dañuy àpp pare rek daanaka daanaka sax duñ duñ xam nu mu toll kon yooyu moom ay ay maanaam maanaam bénéfice zahir la yoo xam ne dafay day fay juddoo ci màggal waaye la gën a yitteel sëñ bi moom mooy yokk gu nit ñi di yokk ci bu ñëwee màggal si santale ko yàlla mu nekk buntub cant màggal damay xam ne buntub cant la boo xam ne sëñ bi dañ ko doon sant boromam ne ko ubbil nga ma ko fataxta baaba shukri lii wan xalaqa baabu shikaayati la day ya bi ma maxaa mi la ba mu jeex bay di jeex ci nuru Nuuru Daarayni di ko wax ne ko yàlla ubbil nga ma buntu cant boo xam ne ba ba ba ba àjjana dootul maanaam tëjooti waaye bi bi buntub cant bi ubbi koo nag la buntu njàmbat daal di tëju nag te loolu yaa ngi ma ko defale bi ma maxaa mi la azaabi wal marad maanaam ci li li li nga xam ne moo far moo weesu ci ay ci ay coono ak ay ak ak ak ak ay ay mbugal ak ak ak ak ak ak i nattu yoo xam ne dund naa ko ci sama biiri noonu kon gis nga bokk yi. màggal a ngi noonu loolu mooy cosaan li foofu la jaar ba agsi ci ay ci ay état bi wute ba ci état bi fii ñu toll nii nga xam ne tey àgg na foo xam ne ci daje yi gën a mag ci àdduna bi lay doon yaakaar naa ginnaaw aj màkk xamuñu lu ko gën a rëy ci ab daje jullit boo xam ne dañ koy daje ci ci àdduna bi di fa teew di fa tudd yàlla léegi li ñu fay wàcce ci ay kaamil yi alquran waxuma la sax bisu màggal waaye lu jiitu màggal gi rek li ñuy wàcce ci kaamil kenn xamul lu mu toll liñ ciy liñ ciy dund ci ay xasida kenn xamul lu mu toll am na ci euh, ay famille yoo xam ne borom xam-xam yi gëstu ci ci yoon wi dem nañ ba gis ne sax am na ay famille diine yoo xam ne euh, amoon nañ tuuti ay réero réero yu doxoon seen diggante waaye ñu ngi gindikoo ci màggal ñu màggal see ñu bokk benn dal bokk di añandoo di ndékkeendoo di reerandoo lañ ba gis ne ñoom kat ndekkete lislaam kat moo leen boole woon bu yàgg lu jiitu ak bokk di leen boole ba tax dañuy daal di waxtaan daal di gindikoo daal di juboo loolu am na ci ay xeeti yoo xam ne day waxi moo tax moo tax doo ci mën a sori ak association islamique yi xataa ñi nga xam ne sax bokkuñu ay macharib maanaam bokkuñu ay naanuwaay xam ngeen ne am na ñoo xam ne dañuy gëm tarixa am ñoo xam ne gëmuñu tarixa waaye bu màggal jotee ñépp ay ñëw daje waa Rawdu Rayaahiin misaal ak yeneen daayira yi nga xam ne dañuy yëngatu ci xam-xam dajale ñooñu xamal leen sëñ bi ci ci ay conférence ci ay waxtaan yoo xam ne bu ñu fa jógee danañ gën a maanaam bokkaat seenu mbokk diine waaye seenu mbokk réew mi ak seenu bokk doon ay sénégalais muy kon loo xam ne kon lu ama am solo loo xam ne ñu ngi ñaan yàlla daal euh, màggal gi euh, yooyu ci sëriñ bi digge yëpp ndax waxoon na ne képp koo xam ne def nga ko ni ma la ko digale santale ma ci yàlla su ëllëgee maa lay fayal sama bopp du la boolee kenn maa lay fayal sama bopp daal di wax sax ne bu ëllëgee bu ñu demee ba àjjana àjjana amul bis amul waxtu amul daal li ñuy tuddee espace ak temps man maanaam notion espace ak temps amul àjjana amul sax àllaaxira amul sax dégg nga bar sax daane waaye nag bés bu ñu demee ba nekk àjjana saa bu fukki fan ak juróom-ñett safar delsee fu waaye nekk ci àjjana ndab dana la fekk loo xam ne danga nga laaj lan moo waral xéewal gii ak teraanga ji yokk ci àjjana soo baa dañ lay xamal nekkat kat bisub Serigne Touba ba al Abdul Xadim bisam boobee di màggal Touba moo dellusiwaat loolee nag kon day lu rëy rëy loo xam ne mbokk yi. war naa tax ñu gën a waajal bis bi gën koo gën koo gën gën koo fonk gën koo jox li mu doon te xam ne nag wax dëgg yàlla bu amul woon nag bu amul woon la mu Musaa wax rek sëñ bi sëñ bi ko wax nee na mu ne nee doog a nag doog nag dem gi wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp dem ni raanu ndax bu demul woon ci géej gi kon dara du ko jar waaye bu demoon ci géej gi ba noppi ñibbi siwut ba màggal gi amut ko itam dara du ko jar kon alhamdulilah ci yooyu yëpp nga xam ne dem na ñibbisi na andi na sëriñ liggéey na ba wàcc andaaleb sëriñ ba taxoon mu naan sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi te sëriñ ba da cee bokk shaafian li qawmihi mooy mooy ràmm di tinu aw nitam bu bu ëllëgee eh, ku ko yaakaar te ne ci lam bëgg di góorgóorlu da nga neex a dimbale lool kon daal sëñ bi daal loolu mooy ab bisam bisub sëñ Tuubaa daal mooy bisub màggal bii nañ ko ko fonkle nañ ko ko téele sëñ bi daal dafa laay jeexale dafa waxoon ju wax ju am solo ne doomu aadama bu nekk boo bu fekkee dalaa defal teraanga ba teraanga ji rëy ci yow ba xamoo loo koy fayee da ko naan yàlla naa dund ba fekkee sa bis baray ci sama bopp baray ci sama bopp daal moom nag Sëñ Tuubaa nag ku ne xam ne ne teral nañu teraanga joo xam ne daanaka daanaka jomb nañu jomb nañu sax kon ba noppi mu ne nag waaye nag nekkul na dañoo teral ba noppite te bis ah kay am na bis de bisam mooy ban mooy yow ma yow ma tubula sarairu bis boobu nga xam ne buñ ci àggee suñu borom day woo sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ginnaaw bi mu woowee yonent yi kenn ku ne mën a la la ma la dénkoon noo ko noo ko doxale bu agsi ki sallallahu ba laaj ko sallallahu alayhi day wax saxaaba yi ne leen yéen itam balaa balaa may wax dara dama leen di laaj yéen li ma leen bàyyee woon ni ko doxale ñooña ñooña ñooña watt seen i àndaar maanaam ñooña dégg nga natt seen i àndaar bu baagal ba ñàkk ci sëriñ bi mooy ñi nga xam ne ñoo topp ki saxaaba yi bu ñàkkee ki sëriñ bi sëriñ bi balaa def dara moom itam day wax saadi xam yi nga xam ne ñoom la defaroon ba def ci ñoom li ne ci moom ne leen yéen itam jóg leen ngeen natt seen i àndaar ma dégg ñëpp gis ñooñee dañuy danañ jóg di def loo xam ne ña ña leen jiitu woon ci ay yonant ak ay saxaaba loola lañ doon def mbaa lu ko raw ba mujj penc mépp ñooy maase wax nit ak ginne ak malaaka xam ne moo ana ki nga xam ne biñ tuddee aw turam ak léegi ay waa këram rek ñooy def la ñee doon def te moom kooku moom kooku jógagut kooku kan la. Cheikh Ibrahima ne baat boobu bii suñ Tuubaa nee na ku bokkul ci ñi ma ko amal ëllëg ñi tax ma ko ëllëg. féetewuma fenn kon nag ñun yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee bokk ci ñu koy féete foofee te bañ a nekk aw maanaam gàngalam ak gàngal mooy koo xam ne dalaa yitif ba noppi te amuloo ko njariñ ba nopp ba noppi moom fu mu toll dégg nga di la jariñ euh, loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la kon daal ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci bis bi di sant ñëpp di ñaan yàlla fayal ñu sëriñ bi te yàlla may ñu màggal gi ñu def ko ci jàmm mu lépp jàll ci jàmm te lépp lu ñu ci séentu ñu am ko am ci lu kawe suñ jort te xam ne lu ci waay bëgg rek mën nga ko ca fas ñëpp laa ne woon bu ngeen gisee ma leen ci soññi ak li leen ci gën a xiirtal mooy dama leen yéene lu ne te xam ne li ma leen yéene lépp lu ma leen ko waaye mu leer ma ne bis bi bisub sëñ Tuubaa bii lu ko waay saf attan na ko lu ko waaye saf rek attan na ko waaye nag naa ànd ak yéene ju sell ak pasteef ji kawe kawe kawe yàlla yàggal fi bu baax Cheikh Mountakha Modou Bachir Modou Bachir te wéral ko lool màggale yéene ma ki naalam te ñun taalibe yi itam yàlla yàggal ñu ci wetam ñu ñu gunge ko ci liggéey bi ba ca kanama kanama kanama kanama kanam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.